yàlla def ba ma ñëwee Benno Bokk Yaakaar Sala Corera moo ko jiite te loolu kenn dakkalu ko ba tey kon Salamata Corera ancien député mooy sunu kilifa ci wàllu politique moo ñu jiite ci wàllu politique ci wàllu euh, parti jiite ñu ci wàllu coalition man wàllu mairie rek laa nekk maire te tey affaire u maire nekku fi affaire politique la ñuy def te boobu moom mooy sunu coordonnatrice moo tax ma ne loolu ay jàngale la pour ñi xamul di parfois di jaawale bu mbir amé surtout nga am geud ak daraaje maire so ñëw rek dañuy faté kilifa gi ci walu politique di indi kilifa gi ci walu maire donc ko ra moy suñu kilifa moy suñu coordinatrice donc muy jigen aussi bu baax donc ñu waxtaanoon dem ci guddi minuit minuit minuit pour décider li ma wo imam ablay Fall mu yag ma xol heure bi mané man minuit jonne di xaaral ma ko rek imam wo ma imam Maria marié wu ma la mëna a ma ngi won sama yi lan la woon man ah man de dama am liggéey bu ma la bëggoon sant xam naa ne doo ñëw waaye am nga relation ak imaam yi ak daara yi ñu bëgg a wàccee kaamil suba coalition bi ne naa ko organiser donc ma bëggoon ko teg sa loxo mu na ma ko allah loo koy ban heure nga ko bëgg ma wax mu na ma incha allah dina am kon su lii amee dañuy gërëm imaam Ablaye Fall ci coordination bi di ko ñaanal yàlla may ko tan parce que daka daan fekkee ren fekke ko suñu xel yep dem ci moom mo ma ngi ni tok mohammed gis ngeen euh xoma yéen ngi suivre réseaux sociaux yi mais sagal na alcorane waxuma le prix yi mu jël ci tari alcorane waye man li ma koy mu sagal ma sagal alcorane sagal njabot sayidina mohammed yep moy kérok TikTok bi ben way day wër TikTok di ñew di laaj ay baatu alcorane tek junni. anam ana boy Mohamed moom gële mu teg junni su la laajee boo tourné mu yóbbu junneem dem ci keneen moom seeraas day liggéeyee Mohamed waa ji jaar seeraas fekk nekku fa di wër di ku mu wër nga faussé ku mu laaj nga faussé waa ji kontaan di ko ndamoo Mohamed ñëw nag am lu ko metti daal di def ci tiktok bi ne su ma fi fekkoon danaa jël junni yi waa ji dégg ko ñëw di Mohamed trouver. trouver di Mohamed trouver. trouver di posé Mohamed di trouver ba ne daara ñu la fenn boole ci ngay doomu Nord di doomu suñu Imam Ablaye Fall Ça que dañ la que qui félicitent, ko dama la koy publiquement tu fais notre fierté tu fais la fierté de la jeunesse musulmane wala nga ne di jeune du tax nga top, li nga ne cadeau

Doudou Ndiaye da nga war a bokk ci comité électoral bi kuréel bu war wàllu diine imaam Abdoulaye Fall moo ko doon yor su comme kilifa yaa ngi nii soo d'accord dañ lay ñëw nga diriger ko ci biir élection yi parce que nag sa wasif la moo joxe ndigal ne parti buy bës su ñàkk da ngay taalibeem na ànd ci coalition bi fii Pikine nor sa place mu ngi fi Aliou Sow Ndiaye dégg naa dafa dem euh, Maroc dama bëgg yéen waa Bësu Ñàkk bu ñuy dajee dajeeti nga ñëw ngeen ñëw représenté Bësu Ñàkk et que kuréel bi yor wàllu diine ñu dénk la ko nga mën a dox li nga xamante ne ab Ablaye imaam Ablaye Fall lañ ko dénkoon imaam Sow maa ngi lay remercier bu baax a baax ndax boo gisee ma lay tudd bëgguma tudd ñëpp mais dafa amoon dëj bu metti temps yi waajur bu jigéen donc fekkoon ma feebar ñëwuma sax ci tànt bi waaye mënuma ko woon muñ dama yónnee délégation pare topp seen ginnaaw pour xool mu xool ma wàcc ma sama oto pour wala ni ma xamee cofelam nu mu nu mu demee demee ci man donc ma ma leen di gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla euh, lii ñu fi ñaan yàlla may ñu ñu am ci liñ ci bëgg euh, kii nu mu tudd jànkatu xasida bi Ibra sama sama waay sa ko su ko fekkee rek sama xel daal yéexal bi nag boo gisee ñu ko doon def lam tooro surtout maam jarbaatu maam Abdou wala doomam sax bu ñu neexee ndax moo ko yar alors dafa naroon ñëw Ima Abdou Aziz si moom la jëli woon mu tardé ba mu yàgg mu koy xaar di ko xaar ba mu yàgg mu woo ko ne ko dafa am empêchement neel jaraat dinaa fa ñëw mais su lii weesoo bu buñ ma xaarati. Abdou Aziz mu ngi ci yoon bi mu ngi toll fii tali bees loolu taxoon ñu guddal ko def yenn waxtaan yi pour mu fekkee ko ñu ciy jégalu bu baax a baax alors liñ gaa yi wax nag laay wax man dinaa am ndaje ak yéen déjà jël naa seen liste. parce que normalement damay préparer bii nag en tant que maire Soukoro Kori yi ñu ma koy jox yéenay njëkk première catégorie bi balaa may egg ci imaam yi ak chef de quartier yi ñi wàccee kaamil bi ñoom ñoom ñoom ñoom laay njëkkee maanaam ku ci imaam wala chef de quartier te bokk ci wàcce kaamil bi bokkul ak sa cër beneen bi suy ñëw loolu man maa décidé ni dinaa leen jox seen suukar koor yéen ñi fi toog tey jël naa yéen ñëpp seen numéro beneen bi mooy imaam yi ak chef de quartier dama leen bëgg a dajale ci salle bii campagne leen woo comité électoral bi wax ak ñoom au lieu ñuy dugg di caravane di di di di dem ci keur yi di tankal nit ñi imam yi amna relation ak ñom bi tane buma ne wuy ci len sen mère ñu wuy ci ma délégué quartier amna relation ñom buma ne wuy ci len sen mère ñu wuy ci ma ñu teju fi ma wax len ak comité électoral bi lan lañ bëgg ci yeen bu dé bëgg ngeen réew mi bu dé bëgg ngeen Sénégal pétrole feeñ fi gaay di takayu pour xol nuñ fi duggé dégg na sax am ay candidat yi nga xam ñoo leen jox alal ne leen dem leen ñu ne parrainage ñu ne dinañ ko jënd jox leen ñu jënd parrainage jox leen té kenn gis leen ci dëkk bi ñu yuxu né affaire yi dafa luub gaay yi bañ ko ko enquête assemblée dajé def commission enquête benn juge porte plainte parce que juge bu porte plainte député dootul laté juge bu porte plainte dañu arrêté enquête député yi kon moy bu mu lèr assemblée voté loi constitutionnelle nga dakk ko ndax lan respecté wul délai yi ndax bëgg nga Macky Sall dem le 2. xoolatoo réew mi en tant que sage yow lan moo nekk sa ginnaaw Karim Wade juddu ndey dretu français ñu ne ku mu dal am nga nationalité boobu baayam di sénégalais mu bind leen lettre di leen topp di leen topp njiitu réew France Karim mënu ko pañe mu yéex a génnee kayit bi mu def déclaration sur l'honneur kayit bi génn te conseil constitutionnel tànnagul vingt yi daa di koy ne ñëw na waaye daal yéex a ñëw doo bokk ñëw na président France Macron jox na la ne nekkatoo français li nga am donn sa ndey donu ko sa deret donu ko sa suuf mam ci walu sa ndey dindi nga ko ngir bëgg Sénégal ñun nanguwuñ nga bokk Sénégal pour dagan bat cest c'est pas sage comme décision loolu nag fippuloo wa PDS ñu dem assemblée am ñaar fukki député ak juróom def li ñu wara def conséquence ne faale ma ko waaw président jël na décret le 25 dafa violer loi bi ndax délai campagne électorale bi loi bi mo wax 21 jours la wara don 15 jours la weesoo wa ana conseil constitutionnel bi waxone Karim Wade par force da ngay respecter règle yi du ma xool ndax yéex naa ñëw tel na ñëw dama da ngay respecter légui luñu wax ci lolu cour suprême suba lay àddu su àddoon normalement daño wara a élection yi normalement waye comme nak jamono ji jamono yi pétrole ak gaz. mais gars yi man wóolatuma kenn ah kenn ki mun na wax droit sax layal ko ndax lan dégg naa ay milliards la ñuy maye borom pétrole yi ay milliards parce que xam nañ ne ay milliards yi milliards mun nañ ko mun nañ ko am bu ñu bu seen waay nekkee ci réew mi parce que ñetti pétrole rek ku la ko jox fii ak 30 mais namatoo dara léegi nag bu leen jëralee def fukki milliards pour corrompre ay nit pour ñu àtte lu leen neex. dañ koy def moo tax Macky Sall newoon leen dal leen crise bi may séen nii muy ñëw te ñuul xëy na gisu leen ko waaye kaay leen ko waxtaanee kilifa yëpp waxtaan jëm ñaajo jox conséquence mu dàqaat loolu mais kan la ñu respecté kon. waaw ah, léegi nag ñoo leen di ñaan comme nee nañ faalewuñ kilifa yi daje jëm ñaajo faalewuñ assemblée nationale bi ak dooleem bi mu voté faalewuñ président Macky Sall ak décret bi mu jël waaw léegi nañu respecté délai bi xanaa bii paa dinañ wax ne violé nañ loi bi. loolu de lañuy ñuy ñaan. alors ma dellu nag ci Amadou Ba man de man wax naa ko démb TFM taal bu yàlla taal sànni ci matt a gën fay ko te man gëm naa Amadou Ba bu ko Macky Sall jàppale woon ci nii sax nii sax tànn ko candidat mu mu jeewu rek dem candidat am na biddiwu doon président man dama ko dama ko xaw ma gént xaw ma dama ko yëg yëg yëgu yaram pour man. am batin bu toll ni bëgg bi Sénégal yalla bëgg Sénégal mu préparer ko Amadou Ba ci impôt yu domaine mu xam pour réew mi recette yi fu muy duggee impôt yi fu muy duggee pare tabaxal ko programme PSE dem wuti ay milliards Paris and ko ak président Macky Sall si nek premier ministre gannaaw ba mu nekkee ministre des finances dem affaires étrangères wour aduna bi am carnet d'adresse am ay morom président yu mu xam

la Amadou Ba di gagné incha allah xoolal dëkk yi muy commencé toj nii te boobu APR jugagul Benno jugagul kon ñooñu buñ ci àndee mu gagné premier tour bu mu bett bu kenn wàcc ci mbedd bi naan résultat yi. conseil constitutionnel da kaa sàcc parce que conseil constitutionnel toroxal na Macky Sall toroxal na assemblée nationale toroxal na dialogue national bu résultat yi génnee kay xanaa du amatu lu ñu wax donc ñoom ñooñu dem feetal bayaalu Parcelles Assainies bii. nga xam ne moog bayalu Daara Xudóos fi xale yi di fulbale ñoo tolloo pour journaliste yi bëgg ñoo rey naan a a akapes Amadou Bari bii moo ko gën a bëri moo ko gën a rëy ñu bëgg ñoo fàtt mobilisation anamu nit ñi di daw di fa jëm te ku ci dem kooku làmbee Amadou Jara la doole. Abdourahmane Diouf ba may politique moo ngi jàng ñi ngi dégg fii yëpp ñu fay dem mënoon naa am parti politique comme ñoom waaye dama yaru am leader muy président Macky Sall ànd ak moo dem xoolal photo bee xool leen xool leen photo be ñëpp xool nañ ko mais yéen xool leen ko photo bi yéen koy gis dangeen am bëtu ginnaaw xanaa mais xool leen waa ji xoolal charisme bi mu am xoolal jekk bi mu jekk xoolal xam-xam ak jaar-jaar ni Amadou Ba préparé daf Macky Sall noonu lañ ko préparé ca maire Fatick directeur société ministre de l'intérieur économie débb président de la premier ministre président assemblée nationale président de la République yalla dafa am jaar-jaar bu muy def prédestination la li dal li tax Macky Sall tànn Amadou Ba té te bokkaloon APR Macky Sall ko xam ndax lako pikiron mo moo Amadou Ba ma bëgg ngeen baña xadi baña xadi nak leneen la leen di ñaan yéen ñii sama yon nekku ci moy danger parce que ñii ñëw ne dañuy xeex diine yéen ñii yéen a ma gën a intelligent doomu daara yi xam ngeen ni ñii faale wuñ sëriñ seeni militant li ñuy yekk xalifa diine yi barki démb Moustapha si Al Amin ba xadara bi xam nga lu ñu woowee xadara bi match tijaan yi match fekkee nga ko dama koy wax naan waaye seen match bi dafa échoué seen match géejawaay bi naka la booy passif yi réew réew bu toll ni tijaan yi daje def lu rafet la leen Amadou Bari ñu tuddee ko ci réseaux sociaux yi match bi ci woon Guédiawaye parce que toog nañ fa gërëm Macky Sall ñooñu bu ñu yoree réew mi fu ñu jëm léegi defante yi doon wuti arme sa bopp ci seen caravane bi rek dañuy wër di toj di sàcc caravane yi ñuy def ni ku ñu romb caravane boo yéexee këf nañ sa yëf ku leen seen ñuy caravane nga daw waaye yéen ngeen ne seen yoo nekku ci

waaw. day xat way way dëgg la waaw. voilà non dama la dugal ci biir rek. dëgg la dama bëggoon mu rafet parce que comme démb ci minuit la. sëñ Cheikh Oumy mu ngi Touba yow mënuma woo sëñ Aziz Abo mu ngi Touba mënu ma woo yéen kilifa diine yi ñu coordonné woon Lam Tooro bëggoon ñëw. ma ne ko na fi pointé ci wàcce kaamil bi. taar taaral affaire bi waaw donc vraiment ma leen ñu leen di remercier yéen ñëpp honorable Salamata Kourara maa ngi lay remercier sànq la nga julli ji woon yàgg Soxna di leen wax ne rek man am naa yaakaar man ni ma ko waxee démb ci TFM ne yàlla moo teg loxo ci Amadou Ba ñun pare nañ matériel yi moo ngi kër Salamata Kourara jigéen ñi seen tissu yaa ngi fa xale yi jigéen ñi seen body yaa ngi fa jeunes yi seen casquette ak t-shirt yaa ngi fa lépp pare na dañu am ngëm-ngëm ñun ñu nekk ci dëgg bu ëpp ngëm-ngëm bi ñu nekk ci safaan nekk dugg ci biir kër yi zone yi commencé ñu wax ak nit ñi nañu campagnal seen nit ñun ñu campagne ñun suñu nit man li may ñaan yàlla mooy bu ñu taal dëkk bi bu ñu leen gagné premier tour man loolooy sama message mais est-ce que Amadou Ba dina gagné ou pas man li ma am expertise ak expérience politique li ma xam Sénégal bu nekkul Dakar ak Parcelles Assainies man gëm naa ne. man gëm naa ne yàlla moo teg loxo Amadou Ba C'est le candidat de Dieu parce que Dieu aime le Sénégal et c'est le meilleur profil pour le Sénégal maa ngi leen di remercier wa rahmatoullah